salaamaaleykum sama gars yi démb dama gis Babacar Touré muy xalamal général Moussa Fall bon nee bam ba mu ko xamee ba mu 16 ans d'accord mais respecté nañ ko trop dañuy sétane kewlu dik deuglu bu baax nak ñu ko naw lañu mu yaakaar ñun dañ ka naw mais dafa dama bëgg mu xamné asaman ci bu ko doon jël dik ko booleeg suuf si ñu takalo mënul wax lu ñu convaincre ci général Moussa Fall impossible parce que dafa am ay homme de tenue yu lay deuglu ñun lu mu bon bon 9 ans d'expérience expérience am naa ko quand même fini mais yow mais qui est le chef de la gendarmerie c'est général Moussa Fall nga ne rijaal ba mu demee ci kër ga ci Ndeye Khady Ndiaye après ba mu génnee dafa dem ci général Moussa Fall ni ko dan maa ni <clears throat> naa ni yow yaa ma ko yebal mais duma ko def parce que yebaloo ma donc rijaal il a trahi il a trahi le peuple sénégalais il a trahi son serment rijaal boobu lan moo tax général Moussa Par sur le champ niwul arrêté leen ko dugal leen ko ci kaso bi lan moo tax ngay exécuter mission boo xamante ni gendarmerie sant loo ko ba pare nga dem di ba ba pare ñu lay naan ma ko jiiñ ci kaso bi parce que santuma la lool te waroo parce que yaa chef lan moo tax général Moussa defu ko général Moussa Fall ay problème inter interne am à la gendarmerie corps yooyu intéressé wuñu ñun ni naa la ba bas xeex c'est des voyous ñoom ñëpp a ki kii dëgg sërëxal kii kee contre kii kee ñoom ñoom neen la moo tax ma ne discipline ak organisation bi war a amaat ci ci ci gendarmerie ak yenn homme de tenue dafa bëri dañ ko war a régler ma ñëwaat ci gendarme Moussa Fall <coughs> ok yow yaay kilifa gendarmerie ay gendarme rey ay nit ay bal réel nga croiser sa bras ñi leen rey kenn déggul ba léegi jàpp nañ leen tëj nañ leen dégguñu sax yow nga ne gendarmerie bi nga déclaré ñu defal benn enquête interne nga xam ñan ak ñan la nga jàpp tëj sénégalais yëpp xam ne tu fais ton boobu ana général Moussa Fall nekku fa 60 morts nga ne boo émet la manifestation la ban manifestation ñoon ñan nekk ñoo leen rey ba pare nga ne fi di ñu ko xalamal ba nga ko daree xalamal yàgg na waxuñu la bandi la rayee na def na dara intéressé wu ñu ñun gendarme yi rayee kan moo leen jox autorisation ñuy rey sénégalais yi ñun loolu lan la laaj Babacar ture kéwul ak ban leen rayee ana général Moussa lan la wax ak lan moo tax ñu kon ne di ko defaat à répétition nan ko def benn yoon mu réagir amatul ñu ni ok il a fait son travail mais à répétition tey nga ñëw bëgg ñu ko xalamal asamaan si bu doon wàcc wala jant bi di fekk ji lune bi du tax ñu gëm kenn gëm ni général Moussa Fall taxu ci parce que c'était le chef c'est lui qui dirigeait commençant par Macky Sall moom kenn wax lay waxam ministre de l'intérieur ñu ay waxam aussi ñew ci général Moussa parce que c'est la gendarmerie qui faisait des bullshit donc bu fi tok naan tak ñi kay xaramal bobu du jall bu sax continuer di forcer forcer nga ba sonn mënul nekk parce que lu gagne la ay gendarmes ànd ak ay nervi nervi yi di tiire ñu taxaw di leen xool di torturer ay sénégalais boobu ana général Moussa Fall xanaa yëgu ko su ko yëgul kon na bàyyi yëgu ko nga ñëw fi bëgg ñu ko xalamal respecté ñu tuuti jox ñu sax cur ñi dee sax nga jox leen cër tuuti enquête bu amee allah kulli xaal kilifa ñoo ñu doon def ñaawteef yooyu fan la seen kilifa ne woon ba pare mu nekk à répétition sans arrêt pendant des mois anamu moom.

embuscade yu kat yooyu parce que c'était flagrant bu gendarmerie réagirul ñu ni kon voilà xool leen la gendarmerie mais yu bon yi ngeen doon def sénégalais ci suuf deux 2000 manifestants yi ñu jàpp di leen torturer lu ne ñu koy daj ci police ak gendarmerie ana ana euh, yàgg ana kooku kon Sankare Bara Sankare ana général Moussa ak ñaata bal réel ngeen bëgg ñu fekk di ñu ko xalamal yow xaaral sax ma jógee foofu deuxième fois mooy inspection du travail. yéen ñax fa nekk chef ba ba ca suuf ku am ak problème libanais jarul ñu leen woo ndax bu leen wooyee ngeen ni gën tëj seen gémmiñ ndax tabaski libanais yee jël ay xaru tabaski leen ko yóbbul yéen ak ay procureur rek ay ay ay commissaire de police ak ay gendarme tout ça on est au courant ak ñi koy yóbbu yëpp xaru tabaski yeneen libanais yi du jox sénégalais bu am problème seen entreprise bu demee police wala procureur wala inspection du travail dara du ko fa jëlee moo tax sénégal yi toog di bëgg a dee ci entreprise yi des na maa ngi yeneen dossiers yu bëri maa ngi ñëw ci mairie yi aussi ak suuf yi ñuy jaay mais tey dama bëggoon leeral li aussi fi may tëjee mooy patriotes yi patriotes yi des fois am ñoo xamante ni day mel ne ñoom tëj nañ leen kaso génn nañ de ñoom pour ñoom comme des king quoi c'est fini ñoo xeex xeex bi mais attention gars yi xool leen ñi dee lu ngeen mënta di bëgg a wax deneen xalaat ñi dee ñi dee kenn mënul leen a fay parce que ñooñu danoo ñàkk seen bakkan ci injustissement ci xeex bi deneen xalaat ñooñu fii ñépp dugal seen loxo ci xeex bi waaye yéen ñu dugaloon kaso dugal leen ci kàmb Macky Sall bëggoon jël suuf suul leen mais xam ngeen ñan ñoo nekkoon ci biti doon rent matin midi soir gis ngeen waa États-Unis ba nu génnee camion bi di ko circuler biir États-Unis di ja jébaane Sénégal bi yëpp gis ngeen ñi nekk France matin midi soir manifestation c'est ak glouné ne gis ngeen ñi nek Sénégal di wax ci plateau yi chroniqueur yi matin midi soir gis nga ñi nek bitim rew nek ci réseaux sociaux yi chaque jour ñuy génne dossier di leen bobu yéne yéen ci kasso bi donte kaso dafa metti trop mais ñeneen ñi leen jox loxo ba ngeen gën tay ñi ngi won ci biti mais buñu xolé ci ñu dé rek war nañu bàyyi ben ego bi ñi dugg kasso pour ñom ñom ñom ñoo sauver Sénégal ñi ne ci biti bu ñu leen bàyyi woon yéen Macky Sall suul leen ñu fàtte leen fa ngeen di dee donc ñi ne woon ci biti ak nu mënta di xeexee kenn amul seen seen fay. ñi jël seen carte nag élection yi ba jëlee fi ñi ñooñu nag ñooy jël deuxième à part les pour man ñi joxe seen carte ñooy numéro deux ci xeex bi yéen ñi nekkoon kaso nekk numéro trois ñun ñi newoon ci réseau sociaux yi nag di xeex man xam naa li ma fi bloqué xam naa yan condition lan ma fi bloqué man xam naa ko fii émirat du lépp la ñuy wax ak ñi nga xamante ni dañoo exilé def yëpp tout le monde se battait corps et âme mais des fois da ngay gis ñenn ñi mel ne mel ne affaire bi c'est eux quoi c'est fini gars yi xalaat leen ñi dee kenn mënu leen fay te looloo tax ba léegi man arrêté parce que justice boobu la soxla la les gendarmes qui ont tué fii ma jox leen benn anecdote at ah, ñun dañu mës a téye di def benn huit kilomètres génn ak soldats yi di daw génn ba ñu génnee dem ba ci dugg nii ci àll bi for benn balu fital benn bal benn balu fital ñu jël bal bi yóbbul ko colonel bi ci kanam bi colonel bi ba mu ko xoolee dafa woo tur bi laaj bi bal kanal ko moom ku ne ñu vérifier sa bal yin la joxoon am kenn ku manqué le benn bal ñu ne ko est xam nga bal bii nit mën na ci defar explosif def bi benn kii bu rëy danger bu rëy nga sàggan ba sa bal kii ñu rajee ko ci dan kaa rajee Radier dàq ko carrément te mënatul fexe ba ñu ko jël ko il n'a qu'à aller se débrouiller moo tax moo tax su may wax di insister suñu homme de tenue yi ni ñu leen war a corriger ak ñi leen war a contrôler lan moo tax contrôler wu ñu leen ak ñi jël ay bal di dóor nu mu leen neexee tël tël dem toog tëdd nelaw te fois damay yëngal bopp kaa ni hé eh? bon fa laa bëggoon di am beneen yoon yeneen dossiers yi dina ñëw sur la table ñi la sàcc suuf yeeg di ko caxat caxate yëpp ay leer yéen ñëpp dinañ leen démasquer te yéen ñëpp di ngeen fay inspection du travail moom Sénégal préparé wu leen première manifestation bi nar am Sénégal pour pour dénoncer inspection du travail ñu avons ña ne des corrompus lu dal Sénégalais ci entreprise nous rek ñu sonn rek yéen la jarul leen sax jël ngeen ni liggéey chaque année ñu jox un ay budget Nous avons doomu Sénégalais ñu leen utiliser def comme ay jaam ci entreprise 000 ay 3000 000 2000 journée ñii 15 ans du ñu duñ leen fay ñii 5 ans CDD ñu leen di bëgg a rey yéen ngeen toog di lekk ba pare ak compagnie sénégalais yi sax aussi di torturer seen mbokk sénégalais yi wallahi lazim am ngeen problème loolu lépp dina daj Sénégal wasalaam gars yi